Euh, ak euh, kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Thiénaba euh, ak kilifa aada yi di nuyu mbokku téléspectateurs yi fàttewuñu le sous-préfet monsieur Ndiak Sarr mi nga xam ni moo nekk arrondissement bu Thiénaba ak téléspectateurs yi nga xamee ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak waa Thiénaba TV tey nag ñu ngi taxaw fii ci Thiénaba Gare ginnaaw bi ñu génnee fi nga xam ne moom mooy sous-préfecture coalition bii di Yewwi Askan Wi muy ay ndaw politique yoo xam ni Euh, macha allah bokk nañ ci ay parti yu uute waaye yàlla def ñu waxtaan euh, ba former benn coalition muy une très forte coalition ñu taxaw nag ginnaaw bi nga xamee ni dugg nañ euh, sous préfecture def li ñu war a def si wàllu administration muy déposé seen liste ba pare waajal nag li nga xam ne moom mooy élection locale yi kon ñoom ñoo taxaw fii war a nag leeral lu bari lan moo waral Euh, ñu àndandoo ñoom nekk benn bloc ak yan euh, parti ñoom ñoo ànd ak yan coalition ñoom ñoo leen rejoindre ba ñu nekk rek benn mbooloo am kenn koo xam ni tànn nañ ko jiital ko mu war a jiite nag euh, seen coalition boobu ci loolu la ñuy jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni moom mooy Moussa Ndongo Moussa Ndongo ñëpp xam nañ ko ci Pastef ci liggéey boo xam ni waa ñu baal ma kon ñu yëkkati kàddu gi jox ko ki nga xam ni moom mooy Ngouda Sawaré Ngouda Sawaré dëkk Cawaare waaye nekk un politicien boo xam ni renommé la nekk pur waaye nekkoon ci coalition coalition bi mu nekkoon dina ko gën a leeral ak ñan la ci àndaloon ak lan moo waral jataay bi su paree ñu yëkkati kàddu gi jox ko Moussa Ndongo mi nga xam ni moom tamit euh, Pastef la la nekk euh, di ci liggéey liggéey bu am solo su paree nag ki nga xam ni moom mooy jiite euh, coalition bi muy xalifa Ibrahima Ndiaye nekk cana bu horizon moom yëkkati kàddu rek bu ko defee leeral lu bari loo xam ni kiy seetaan war na koo mën a déglu ak ñi mu àndal présentation boobu yooyu yëpp dina génnaal ci biir kàddu yi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa Thiénaba yëpp di jiital ci nuyoo bi rek la xalif général de Thiénaba Baye Assane Seck di ci tegle chef de village Serigne Niana sekk ak al imam Serigne donc euh, tey maa ngi tudd Ngouda Sawaré dëkk cawaare donc ci présentation bi rek li muy njëkk a wax mooy euh, man maa nekk le coordonnateur euh, coordinateur communal du parti PUR léegi nag suñ ñee parti PUR yàlla dafa def jamono yi ñu toll dafa am benn coalition boo xam ne leader yi ci kaw dañ ko defaroon coalition boobu nag ñu ngi ko tudde woon yeewi askan wi parti yi ko composé woon Pastef ci la bokk bu Ousmane Sonko PUR ci la bokk euh, euh, AJ jot na ci la bokk Euh, taxawu Sénégal aussi ci la bokk. PRP euh, aussi bu Déthié Fall ci la bokk donc euh, yooyu ma tudd yëpp ku ci nekk am na représentant fii ci Thiénaba ak le grand parti donc monsieur Samba Diagne mi ngi nii pour taxawu Sénégal monsieur Mansour Dieye mi ngi nii pour PRP bu Déthié Fall monsieur Moussa Ndongo aussi mi ngi toog pour Pastef donc ak monsieur Birane Gueye moom moo fi nekkeel grand parti. donc loolu bi ñu ko defee boobu ba léegi ak mu xam noonu daa ñëw boobu bi ñu ko defee ay weer ñi ngi ci doon wax waxtaan di ci def ay réunion réunion yooyu ñu doon def nag yëpp dañ ko doon defee ci turu euh, yeewi seen euh, yeewi askan bi bi yàlla dogalee ñu dem ba toll ci candidature ñu waxtaan defoon ay proposition biñ demee nag ba comité bu mag bi nga xam ne moo seqoon yëf yi atte yàlla dogal ñu choisiroon ma comme candidat yeeyu askan wi fii ci commune Thiénaba mais bi loolu amee ñu wëlbatiku waxtaanaat ci entre coalition bi ñu gis ni buñ demoon wuti yeneen force dolli ko ci coalition bi dafay nekk rek lu ñuy permettre euh, le 23 janvier incha allah suñu victoire gën a leer. bi loolu amee ci lañ waxtaan ak euh, Mohamed Bachir Diagne donc euh, moom mi ngi représenté bokk gis-gis ci commune Thiénaba ba xalaat boobu ñu amoon ndaka lañ mën a defee ba ñun ñu nekk ay jeunes ñu jéem a booloo pour li fi nekk ñu jële ko ñu waxtaan ci ba déggoo ci kàddu bi loolu amee aussi ñëpp continuer ni def waxtaan ba yàlla dogal aussi suñu frère suñu ami euh, Khalifa Ibrahima Ndiaye bu ba Horizon rejoindre ñu bi ñu rejoindre aussi wax dëgg yàlla dafa nekk fierté bu rafet ñëpp kontaan ci ñu gis ni kat équipe bi te euh, bu continuer yàlla mën nañu may ndam mais taxul tamit ñu yemale jeunes même ñi nga xam ni sax ay mag lañ ku ci ne def nañu ay rencontre pour jéem a xool nan lañ mën a bex fexe ba surtout ñi nga xam ne li ma waxoon léegi ay jeunes lañ ñu boole leen ak euh, euh, ñu mën a doxal aussi beneen parti rejoindre na muy une partie de réew mi noonu laa ko mën a tudde ñoom tamit ñëw nañ wane ni incha allah nañ ci bay seen waar donc loolu daal en en en résumé moom laa mën a wax donc coalition bi ñoom ñoo ko seqoon mais réew mi ñëw na ni fas yéene ci jàpp comme ñi ci tamit bokk gis-gis ñëw na mais tamit ñu ngi koy demee ci bannière la coalition Yewwi Askan Wi donc bi loolu amee man mi nga xam ne maa nekkoon candidat officiel bu Yewwi Askan Wi bokk naa ci ñuy wax ginnaaw ñu ci waxtaanee ba pare ma ne lépp loo xam ne intérêt Thiénaba bu xasee soxla man sama intérêt bàyyi naa ko ci laa jëlee tête de liste bi dinañ ko jox euh, Ibrahima xalifa njaay mais du man kese ndax Yewwi yi lu luñ ciy def dañ koy waxtaan ba juboo ci bi yëpp génnee ñu àndu dëppoo ci ci lañ ko jëlee jox ko ko est-ce du def ko jox lii wala lii ñun dañ ko def en âme et conscience a xalifa mii bi ñu koy xam donc ci école élémentaire bi ñoo ko bokkoon doon fi jàngee ñu xëyee duggandoo bu ngoonee mu ñibbi cawaare mu ñibbi canaba donc ci loolu rek lañ continuer te incha allah ci lañ fas yéene continuer leader yi ñu ci war a waxtaanal yëpp ku ci nekk waxtaan nañoo moom tey nag ñëwoon nañ déposer suñu liste incha allah ñu ngi xaar d'ici dix jours ñu jot réponse bi bu ko defee lépp loo xam ni travail bu ci war dinañ def sur le terrain du ma terminer mukk nag te lancer wu ma appel jeune boo xam ne mi ngi dëkk Thiénaba ñu xam ne ubbil nañ leen seeni bunt bëgg nañoo ànd ak ñoom ndax ñoo bokkoon benn cause bu bu ñu doon xeex ay weer ci ginnaaw ba lu ne fekkoon nañu ci nag mais dañoo gëmoon ni mënoon na sotti donc ñooñu encore une fois du jar ñu koy lim mais ñi ngi leen di woo ci tur yeewu askan wi ñoom ñëpp ñëw rejoindre su ko defee ñu ànd xeex salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi biñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di tàmbalee nuyoo bi ci suñu xalif sëñ Xasan Seck di ñaan yàlla yal na ko yàlla defal tawféex yal na ko yàlla yàlla defal taysir di nuyu également suñu imam ratib julli julli yi mu jiite yëpp yàlla na ko yàlla nangu di nuyu à travers euh, notre illustre chef de village Serigne euh, Alassane Niane Seck toute la population de Thiénaba di leen xamal ni euh, seen mbokk Moussa Ndongo moo jëloon parole man maay la coordinateur de PASTEF au niveau de la de la commune de de Thiénaba tey nag ñu ñëwoon déposé suñ candidature au nom de la grande coalition muy Yewwi Askan Wi dañu ni ce son les événements euh, ce son les circonstances ki dictent les événements lan moo xew suñu benn euh, xarit koo xam ni suñ compatriote la muy euh, mu de monsieur Ngouda Sawaré le destin avait fait que moom lan tànnoon pour mu jiite la coalition de de Yeewu moom nag bi xoolee ni am nañ opportunité boo xam ni occasion boo xam ni ci la ñuy gën a yaatal suñuy chance moom mu jëlee euh, suñu benn frère ñu koy wax euh, Ibrahima euh, Ibrahima xalifa Khalifa Ndiaye Euh, bi mu ñëwee euh, moom moo jiite coalition boobu ñu koy wax Yewwi Askan Wi ñu xam ni euh, Serigne Ngouda Sawaré def na un acte majeur parce que candidature bi yàlla def na mu tombé ci moom mais mu gis na mu gis ni mën naa gën a yaatal tey bu ñu tàllalee loxo Ibrahima Khalifa Ndiaye bu ñëwee coalition bi dina gën a am sens pour ñu constituer une véritable machine électorale pour mën a remporter les élections ñun aussi de notre part grand parti bi nga xamoon ne nekk na candidat man partir au niveau de Pastef je me suis dit que li opportunité occasion la ñun ñëpp ñu bàyyi suñ intérêt personnel ñu xool intérêt de la commune de Thiénaba parce que tey booy xool Thiénaba euh, le changement au niveau de Thiénaba c'est une urgence Thiénaba euh, biñ koy érigé mu nekk communauté rurale dafa coïncider ak sama date de naissance man je suis né en 1972 mais booy xool du point de vue infrastructure du point de vue développement Thiénaba est à la traîne donc aujourd'hui euh, changement c'est une niveau de Thiénaba moo tax ñun ñëpp ñu ni nañuy lëkkaloo bàyyi suñ intérêt personnel ñu booloo def benn dànk bu ko defee élection yi di ñëw ñu mën créer le changement au niveau de Thiénaba ñu jox Thiénaba sa dignité ak place bi nga xam ni war na ko am au niveau local mais également au niveau national kon ñi ngi tàllal loxo képp koo xam ni dëkk na Thiénaba kooku koo xam ni développement Thiénaba ñor na ko mu ñëw rejoindre la grande coalition ñu xam ni aujourd'hui le changement c'est maintenant ou jamais donc mënuma terminer lii sans pour autant me remercier l'architecture de cette coalition muy l'infatigable euh, monsieur Mansour Dieye moom euh, depuis que ñu taxawal mbir mi euh, euh, vraiment mi ngi sonn euh, nelawatul demul ci famille bi vraiment defoor na effort yëpp yoo xam ni am na ko def na ko ci pour sauver la coalition di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ni lépp loo xam ni teg na ko loxo mu am ndam yal nan yàlla def ba Euh, janvier 2021 que notre nouveau maire sera Ibrahima Khalifa euh, Ndiaye. Nous constituer une véritable équipe dynamique au niveau de Tianaba pour que le développement puisse s'installer désormais au niveau de la localité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. maa ngi nuyu mbokki Thiénaba yëpp di nuyu suñu maam xalif euh, général Thiénaba sec xalifa euh, général de Thiénaba suñu maam euh, sëriñ Xasan Seck hmm. di nuyu suñu kilifa yu tedd yi nekk ci biir Thiénaba yëpp hmm. di nuyu aussi waa Sénégal hmm. ndax Thiénaba bokk na euh, dëkk diina yi gën a mag si Sénégal nekk aussi commune bu am solo si département de Thiès donc aujourd'hui maa ngi présenté wu tudd Mohamed Diagne euh, ñu gën ma xam si Mohamed Diagne Bassir nekk aussi euh, coordonnateur communal du parti Bokk Gis Gis euh, nekkoon candidat ci élection locale yi ñu ñu jëm 23 janvier 2022 yàlla def ñuy waxtaan naka la ñu mën a def ba mën a am opposition bu am doole mën a suqali Thiénaba opposition boo xamante ni dina mën a jële Thiénaba fi mu nekk yóbbu ko fu sori donc ñu nekk ay mbooloo bu takk boo xam ni depuis longtemps ñu ngi waxtaan su naka la mën a àndee am doole mën a imposer suñu bopp si noonu la ñu waa euh, coalition Yewwi Askan Wi woowee waxtaan ak ñun ñu ñëw ànd ak ñoom accepté bàyyi suñu candidature au niveau de bokk gis-gis ngir mën a bañ a tas li nga xam ne mooy opposition donc ñu def sacrifice bu énorme bu mooy mën a ñëw dugg ci biir coalition bi jàppale suñu euh, mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition Yewwi Askan Wi ngir euh, yaakaar gi ñu am ni mën nañoo suqali ba incha allah yàlla may ñu ko ñu mën koo def au soir du 23 janvier 2022 asalaamaaleykum maa ngi nuyu waaj ñëpp. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nu commencé sama nuyoo di nuyu kilifa dëkk bi di suñu kilifa ñun ñëpp. di suñu xarit aussi comme ni mu koy waxee bés bu ne mooy Baye Serigne Assane Seck xalif général de Thiénaba. di ko ñaanal mission bi mu yoral maam Ahmadou Ndak Seck yàlla na ko si yàlla may une réussite total parce que bu si amee réussite rek mooy ñun population wu commune yëpp am na njariñ am na euh, suñu réussite lay doon. ah di di di am kontante loolu tey fii di wax yàlla xam na ni sama xol dafa tooy sax parce que say moroom say nawle ëppoo leen xam-xam ëppoo leen alal ëppoo leen dara ñoom ñëpp ñu taxaw tànn la ni la jàpp nañ ni mën nga leen a jiite loolu ku mu doyul xaw ma lu leen di doy donc moo tax ma leen di wax ñoom ñëpp di commencer si ki nga xamante ni tey wax naa ko ko rek muy monsieur Mansour Dieye parce nag dinaa dinaa ñëw avant may wax foofu monsieur Mansour Dieye da nga réussir loo xamante ni c'est extraordinaire lu musul am Thiénaba parce que li ma gëm mooy cette coalition la mooy coalition bi gën a rëy si coalition yi nga xamante ni mooy dem élection locale parce que nag coalition boo xamante ni parti bu ñuy wax Pastef ñëpp xam li ñu représenté fii moo ngi sa biir parti bi ñuy wax PUR ñëpp xam zone bi li fi PUR di représenté ñoo yaa ngi si biir parti bi ñuy wax PRP ñëpp xam li muy représenté ak les hommes de valeur ya fa nekk yaa yaa ngi si biir parti bu ñuy wax euh, bokk gis-gis ak ñëpp xam bokk gis-gis ni mu mel ba ak ki leen fi représenté muy Mohamed Diagne ñëw ànd si biir euh, coalition boo xamante ni ku mel ni Birane Gueye représenté ñëpp xam doole ji mu am zone nord représenté parti bi ñuy wax grand parti bokk si si si coalition boobu la taxawu Sénégal euh, ba Khalifa Ababacar Sall ñëpp xam liggéeyam si Sénégal ñëpp xam taxawaayam si réew mi bokk si ci coalition bi waa réew mi aussi debout parce que nag bu ñuy wax ni réew mi ñi nga xamante ni am nañ solo fii ci commune Thiénaba ñoo ngi si ci ci ci biir coalition les femmes de développement gis nga leen doon les femmes leaders ñoo ngi nii bokk si ci ci ci ci coalition bi suñu jigéen ku mel ni Mame Diop aussi tamit moo ngi si ci coalition bi loolu nag boo ko gisee boo ko boo ko boo boo boo gisee euh, âge jot na bu bu bu bu bu Moussa Diop moo biir coalition bi une partie de l'AFP aussi parce que gëm naa ni les hommes de valeur de l'AFP aussi ñoo ngi cette coalition bi tey booy jàngat coalition yi nga xamante ni ñoo ngi taxaw fii nii coalition bi moo fi gën a rëy coalition bi moo fi gën a taxaw te loolu nag pour que mu taxaw xool leen ñii ma taxawal ñëpp ay ndaw kese lañ donc Mansour ñoo ngi lay sant di la gërëm je di ai dit benn jour mos nañoo dem négociation ñëpp pour fexe jeune bi jeunesse bi ànd ñu jotee fa ñëpp daal di tas mais ba ma jógee dama ni ko yow Mansour vous êtes un grand homme Mansour parce que nit koo xamante ni à chaque fois foo ko fekk moo ngi defar te du bëgg dara kooku foo ko gis rek xam ne nit koo xamante ni c'est un homme de principe di nuyu di quelqu'un ku mel ni Ngouda Sawaré aussi parce que ñëpp xam nañ ni man dama bokkoon benn benn mouvement laa nekk di liggéey muy mouvement Thiénaba Horizon dugg si benn coalition ñu koy wax gox yu bees di si liggéey doon préparer samay liste dem si jëm si à des élections locales ñoom nag ñu toog Yewwi Askan Wi ñëpp xam nañ doole ji ma am fii si Sénégal ak si réew mi ñu toog waxtaan tànn seen candidat ñu def ko Ngouda Sawaré bi mu pur mii nii ñoom nag ñu toog waxtaanaat seen biir daan ne ah mbir mi kat ñun la mais il faut ñu gën a yaatal ba ndam am nguuda bu ko taxaw bu ko neexoon taxaw ni mooy doon candidat par force te tey day ñëw déposé candidat tey te ñi yeew ni nekk ñekk si yeewu askan wi dañuy ànd ak moom mu ni leen ah gis naa suñu xarit koo xamante ni jàpp naa ni bu ñëwee aussi tamit mën nañoo apporter dara man mi ngeen jiitaloon yéen ñëpp bàyyi naa li ngeen ma jiitaloon jox ko pour que ñu am àndum nawle pour que ñëpp gis seen bopp kon ngoone ñoo lay remercier si loolu ku mel ni Moussa Ndongo xam ngeen Pastef ñëpp xam nañ la vitalité de ce parti la dans cette commune là et au niveau du Sénégal Moussa bu ko neexoon ak décision fu mu mën a jógee mu ber yoonu boppam te bu boobaa dina bokk si candidat yi gën a dina bokk si ñi fi ëpp électorat mais mu taxaw daan ni man li ma gën a intéressé mooy la cohésion des jeunes la cohésion euh, au niveau de de Thiénaba ñu fexe ba l'intérêt wu Thiénaba primé wu surtout mu ne ah képp ku ñu tànn surtout parce que nag ba ñuy waxtaan fekkewuma ko mais ña ña fa nekkoon ba ma ñëwee nee nañ ma Moussa Ndongo nee na leen képp ku ñu tànn bu dee Khalifa Ndiaye de d' accord naa 100 pour cent mm. keneen ku ñu tànkudul Khalifa Ndiaye d' accord ma kon grand Moussa maa ngi lay sant di la gërëm tey wan nga wane wan nga encore une fois de plus c' le vrai le euh, c' est quoi le sens du du du comme seen parti ni mu koy waxee vous êtes un vrai patriote parce que patriote rek mooy sacrifié wu pour l' intérêt wu population wu commune de Thiénaba donc gëm naa ni sa leader tey bu gisee li dina kontaan si loolu di di di remercier aussi quelqu'un koo xamante ni mën naa ni suñu kilifa la ñun ñëpp parce que mooy suñu doyen fii muy Pape Dieng négociation yi ba mu commencé ba léegi ça fait trois deux ou quatre mois chaque ma heure bu ne Pape Dieng moo ngi woo nit ñi defal la kële defal ak kële defal ak kële mënoon na ko see bañ a fekk. dem toog def lu ko neex mais defu ko dafa ñëw ànd ak ñun ñëpp kon grand Pape Dieng ñoo ngi lay ñoo ngi lay sant di la gërëm di ku mel ni taxawu Sénégal aussi grand Samba Diagne moom yàlla dafa def ni yàgg na. yàgg yàlla dafa def ni yàgg na mu ñu am une convergence de de de vue. bëri na ndaje yoo xamante ni dañ ciy ànd te Samba kat mënoon naa toog ndaat ni a ah, kee dafa am fu mu nekk man ma am fu mu nekk mais moom nee na li ko yitteel Thiénaba mooy li nga xamante ni day dem vers askan wi moo tax ba ma waxee ni ma xalifa lépp looy defati lu xamante ni askan wi am nañ ci intérêt boo ma wooyee dinaa ñëw bopp ba léegi fu ma jëm muy guddi muy naaj muy bëccëg muy taw ñoo koy ànd moom mi Samba Diagne kon war nañ koo sant di ko gërëm muy Pape Omar Ba aussi bokk dans la mouvance présidentielle tey jii ku xam l'AFP xam li muy représenté mu ni fa ñukk loolu daan ni soxlawuma lool man intérêt Thiénaba laa soxla kon Paul yow war nañ laa sant aussi gërëm la di gërëm aussi tamit les femmes leaders là vraiment ku xam Thiénaba xam ni ñii tamit intérêt wu Thiénaba ak xool nan la jigéen ñi di fexe ba am euh, loo xamante ni dañ ko mën a yóbbu seen kër am liggéey bu baax loolu la ñuy liggéey kon maram Samb ñoo ngi leen di sant aussi di leen di leen gërëm Birane Gueye aussi képp ku xam zone nord xam ni am na fa benn représentativité boo xamante ni kenn naatamlewu ko Birane mag ñu fuuf ñun ñëpp ñu fi nekk moo ñu mag dàq ñoo politique parce que moo ñu njëkk bu yàgg si politique biraan daan ni li ma jàppoon lépp bàyyi naa ko ñëw topp seen ginnaaw parce que ay ndaw ngeen te am naa yaakaar si yéen nañ ànd liggéey lii nga xamante ni musiba la ñu jëlee ko fi kon Birane aussi ñoo ngi koy sant di ko gërëm ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ñoo ngi si zone nord daal ñii fi nekk doonoon des politiques yaakaar ni ñoom daal mbir mi seen ci gël guy la à partir de maintenant dootuñu leen may dara bay boo ñu xam ko parce que cette coalition là mooy coalition bi gën a am doole moo tax ma ni monsieur le maire bay boo mu teel a préparé ay bagages am parce que vraiment gëm naa ni machine bii nii moom fu mu jëm doxul jàmm daal en tout cas et puis ma am lu ma leeral il faut que parce que à moment donné dañ doon wax naan xale yi dañuy fo demuñu fenn wax la rek dañuy wax xale yi jéggi benn paa ñu ne ah dañoo réew ñu dem ba benn instant ñu ne ah dañuy sóob rek léegi inscription yi ku mel ni man par exemple moom du fi voté France lay def inscription jot ma jugee France ñëw changé sama sama lieu de vote fii Thiénaba ñu toog ba benn instant encore xam ni xamatuñ fu ñu jëm xam ne xale yi dëggal nañ seen bopp ñuy def lu tubaab naan de la def des spéculations maanaam di yàq pour que population bi cofeel gi ñu am si ñun cofeel gi ñu am cette jeunesse la wàññeeku ak yaakaar ji ñoo ngi wër fépp commencé le monsieur le maire naan ah gone gii kat ngeen di wax munta voté Thiénaba munta fal munta folli man leen ku munta fal munta folli nu muy nu muy nu muy nu muy mais bokkee ci coalition bay déposer dossier de candidature tey jii fii si maire bi gis nga population wu Thiénaba ma leen di rassuré waat encore incha allahu rabbi bu neexee suñu borom élection deux mille vingt deux vingt trois janvier deux mille vingt deux incha allah dinañ samp suñu ndënd ànd koog yeewi askan wi yëpp ak yeneen parti yi nga xamante ni ñoom lañ àndal pour fexe ba lii nga xamante ni depuis euh, depuis sept ans moo ngi ñuy bëgg a gaañ moo ngi ñuy bëgg a rey ñu jëlee ko fi. tey di wootawaat yeneen jeunes yi. Mm, ñi nga xamante ni rien n'est man loolu laa gëm. Mm-hmm. c'est vrai déposé nañ suñu liste mais man li ma gëm mooy du conseil yi rek ñoo mën a doxal euh, municipalité commune bi yeneen jeunes yi nga xamante ni nekk nañ feneen ak ñi nekkul woon foo leen ñoo ngi leen di lancer un appel solennel parce que cette euh, occasion là musul am Thiénaba et je pense que ni c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal un jeune de moins de trente cinq ans dugal dossier de candidature am taxaw ni damay doon maire te ñi ko encadré ni yëpp c'est des jeunes yoo xamante ni c'est de la génération de sa génération donc cette jeunesse là ils n'ont plus le droit de baisser les bras cette jeunesse de Thiénaba là mënuñu def leneen pour mënuñu def leneen lu dul ñëw jàppale ñu incha allah pour que le janvier ñu am ñu jël ndam li en tout cas bu ma maa ngi maa ngi santaan ñëpp di di kontaan di remercier presse bi aussi tamit parce que mën ngaa def te population yi duñ ko gis mais ñoom nag à chaque fois ñoo ñuy jokkale ak population bi donc euh, presse bi ñoo ngi leen di sant am na ku ma sëriñ bu ma yox mu naan bu ma daan dégg muy wax mu naan métier malaaka ngeen yor da ngeen di fekk ku wax fii ngeen yóbbul ko koo xamante ni moo nga ay kilomètres ay kilomètres donc loolu c'est euh, toute la presse de Thiénaba la presse locale ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ah di waxaat ñëpp rek incha allah à partir de d'aujourd'hui euh, dossier de candidature bi dugg na fii ba 23 janvier daal nañu fexe ba tànk bu ñuy soqi rek nay dem ver askan wi. gën a wax ak ñoom gën leen a ñaax mais aussi. wan leen pro programme bi nga xamante ni incha allah fan yu néew dinañ ko jokkoo ak ñi ñu ñëpp ñu àndal dëkk boo nga xamante ni nekk na si commune Thiénaba ñu dem fa présenté ko et gëm naa ni dinañ ko gëm dinañ ko bëgg parce que programme boobu noonu moo nekk en phase avec réalité politique économique d'un monde moderne salaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokku téléspectateur bi doon seetaan euh, mu ngi noonu kon yeewi askan wi moom euh, xam naa samp na ndëndëm tey lañ koy wax euh, jëm ci mairie bi ànd ak une très coalition coalition bi présenté nañ leen leen ko euh, présenté nañ leen ni mu tëddee euh, kon ay ténor la ay jeune la ay ndaw la ñoo xam ni euh, fii la ñu cosaanoo ci gox bi waaye ci dëkk bi la ñu cosaanoo di laaj nag maire bi nga xam ne mooy maire yu ba déposé nañ tey seenu liste mu nekk lu am solo kon di la jaajëfal rek di la jox dig daje incha allah yeneen i jataay ñu ngi àndoon ak Khalifa Ndiaye àndoon ak Mami Diallo ci assistance bi ak Moussa Ndiame Gueye ci micro bi joxante dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla def ko Moussa Wane